asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan fu ngeen mënti nekk ci biir mi ak ca bitim réew nuyu nañ leen fii ci grande mosquée bu Touba dina wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel wàccaayu màggal Touba gi 1444 ginnaaw gàddaayu Yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di atum 2022 muy xibaaru màggal gi. mbokk yi xibaar yi tey dañ koy dooree ak euh, benn fan ci weeru safar di bis nga xam ne baaxoon nañ at mu jot euh, ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim di xalif général des Mourides dana amal déclaration ngir woote euh, màggal gi muy appel bu mag a mag boo xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides def na ko ci teewaayu ko Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir bi nga xam ne moo yor kàddoom Serigne bi nag ñëwaat ci ay ponk yaatoo yaatu ci màggal gi ak solo si nga xam ne moom la am waaye nag gën a ñaaxaat ñi nga xam ne ñoo di jullit yi ñu gën a farlu ci jaamu yàlla waaye ñaanaat ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu jàng al alquran waajalee ko li nga xam ne moom moo di bisub 18 safar ñu ànd teelu kàddu yi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou ci waajtaayu bis bu mag bis bu mag bii di bëgg a ñëw. nan ko nan ko nan teewlu bu baax. nan teewlu bu baax. ak lun lot lot lot. ak lun lot lot lot. nan teewlu bu baax jëm jëm jëm jëm jëm seen suñu lépp sëriñ nan teewlu bu baax jëme suñu lépp ci sëriñ bi. fas yéene suñu suñu suñu yitte yëpp ñu jëmale ko ci moom. fas yéene suñu yitte yëpp ñu jëmale ko ci moom. jublu gépp ñu def ñu jublu mu mu mu suñu jublu. muy suñu jublu gépp muy suñu jublu. suñu jublu muy muy jublu sëriñ bi. jublu gépp di muy jublu sëriñ bi. loolu dañ ko nan ko nan teewlu fii. nan teewlu fii. waajal ko waajal ko. ba bés ba agsi kenn ku ne ci nun nag. kenn ku ne ci nun nag. feeg bis ba feeg bis ba. képp bépp bépp taalibe. bépp taalibe. ak képp ku bëgg Sëriñ Tuubaa. ak képp ku bëgg Sëriñ Tuubaa. na nga na nga na nga am pësteefu. na nga am pësteefu. jàng kaamil. jàng ab kaamil. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant gi. cant gi ñuy war a sant sëñ Tuubaa. gi ñuy war a sant sëñ Tuubaa. ak di ko ko santale. ak dik ko ko santale. kenn ku ne. kenn ku ne. na jàng am pësteefu. na am pësteefu jàng ab kaamil. boo ko mënee boo ko mënee. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant gi. ak cant léegi. ak cant léegi. ku ku ku ku ku yàlla dogal mënoo ko. yàlla dogal mënoo ko. am na ñu ko mën ca sa am na ko mën ca sa wet. nga nga seral xolub ku la ko jàngal. nga seral xolub ku la jàngal. loolu yaakaar naa ñëpp loolu ñëpp mën ko mën ko def. loolu defe naa yaakaar naa ñun ñëpp mën nañu ko def. yomb na lool yomb na lool. te jëf ju rëy la. tey jëf ju rëy rëy la mën naa defar lépp mën naa defar lépp. mu nekkoon kàddu yi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di appel bi nga xam ne def na ko mu jëm ci màggal quarant 1444 ginnaaw gàddaay gi. mbokk yi ba léegi eh, ci xibaar yi benn fan ci weeru safar di bis bi nga xam ne at mu jot fii ci dëkk bu sell bi eh, di Touba daañu amal mbale mu yaatu moo xamante ni moom la ñuy waajalee màggal gi seetal mboolem dëkk bi ngir mën a teertu ñi nga xam ne ñoom ñoo di eh, gan ñi loole ñu amal ko ci njiital Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif Mbacke mi nga xam ne moom moo jiite liggéey boobu ànd kooku mboolem taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci loolee ki nga xam ne moom moo di Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou na kàddu yu am solo mu jëm ci mboolem Baye Fall yi ak mbale mi nga am solo mi nga xam ne ñu koy amal ci dëkk bi waaye gën a ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi ñu gën a setal li nga xam ne moo di dëkk bu sell bi di Touba ñu ànd teewlu kàddoom. yëpp sëñ Sidi Dieng ñëwaat nañ fii ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yëpp nag jaar ko ci murit yëpp nag. li sëñ Muntaxa di woote nag. li sëñ Muntaxa di woote nag. du woote du du ab coona. njëriñ la woote njëriñ. njëriñ di woote. kaay leen jël la kaay leen jël wax. buñ ko mën a may. buñ ko a xam na sa ba dëkk ba nga nekk. kon fa ko yónnee may ñu ko. waaye day alal yàlla joo xam ni. moom day mënu su koo maye. des ko jaay rek. lay njëgg nag. mu wax ñu la mu bëgg. ko defee. sunu borom def lépp lu bëgg bëgg tey nag yéen nag yéen a ngi def li sëñ Muntaxa bëgg tey jii kon nan rafetal suñ jort bu baax xam ne suñ ñun liñ bëgg sunu borom dinañ ko defal ndax ñun day bëgguñu dara lu may jekku ndigalul sëñ Tuubaa yi te ko koo jëfe rek kon loolu yàlla na nu dal jàngoro murid yi fi teew yëpp jàngoro murid yi fi teew yëpp muy góor ak jigéen ñoo bokk jenn jàngoro suñ jàngoro mooy li sëñ bi bëgg te mënuñu bëgg te mënuñu ko. loolu rek moo metti loolu rek metti. waaye li sëñ bi bëgg buñ ko mënee. waaye li sëñ bi bëgg ko mënee. dara méttiwul kon yàlla bi bëgg yàlla nañ ko mën murid yi. liggéey bi nag liggéey bi nag. mbal mbale la tudd. mbale la tudd. waaye bale nag. waaye bale nag. ay wolof la ay wolof la. mooy bale bale. mooy bale. dañ lay baal say bàkkaar. dañ lay bale mooy dañ lay baal say bàkkaar. baril sa wërsëg. baril barkeel ko barkeel kon loolu. kon loolu. ku ku ko dégg du lu ñuy maye. lu ñuy jaay la lu ñuy nag mooy ñëw jëf. njëgg nag mooy ñëw jëf. ñëw na ay yoon léegi lool léegi. mbokk yi ba léegi ci euh, mbalem Touba moom la ñuy desandi ndax ci euh, ñetteelu fan bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall di bay Fall yi dem nañ ca armeelu ya foofe it euh, setal ko ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee at mu jot foofee it mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, Baay Faal yi def nañ fa liggéey bu am solo ba setal lépp loo xamante ni moo jëm ci armeel la dindi ñax yi euh, bay li nga xam ne moom moo fa nekk ci ay gàkk-gàkk loole lépp ñu génn ko dem tuuri ko ci loolee am na kàdd yoo xam ne taxtaat nañ ko ba léegi ci Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Aminta ñu teelu ko la ilaha illallah mu jël kaddu ga ko ci Sëriñ Muntaxa Mbàkke jëwriñ Sëriñ Tuubaa ji dafa zaal murid yaa ko jëwriñ moom seen ay faal yi muy Sëriñ mu Sëriñ Moodu Mbenda jëme ci mboole julli yëpp ak murid yëpp ndigal lu Sëriñ Tuubaa joxe woon nañu ci saxal dëkku Tuubaa bi ak seen organisé Sëriñ Tuubaa yi màggal Touba ku ko wax sa xel dina dem ci grande mosquée euh, bu Touba nekk bërëb boo xamante ni taalibe yu bëree bëri dañ fi euh, ñëw euh, ci màggal gi ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo di daayira mu xaddamatul xidma amal nañ wàccaay wu am solo ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum entretien ngir lépp loo xam ne ci bërëb bi la rek muy grande mosquée bu Touba ñu waajal ko dindi poussière yi changer lampe yi lépp loo xam ne rek jot na yeesa yeesalaat ngir waajal bisub safar def nañ ko. ci loolee ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne Fallou Mbacke mi nga xam ne moo yor wàllum organisation ci daayira Muxaddamatul Xidma ñëwaat na ci ni mu gën a yaatoo ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum entretien boobu ñu ànd teewlu ko. liggéey bi ñu ngi ko tàmbalee tey jii ñaar fan safar yi ni ñu ko baaxoo defee commission organisation ni mu baaxoo waajalee màggal gi ci ndigalu commission exécutif bi ginnaaw bi ñu dajee ngir tënk liggéey bi ni mu war a doxee. tax ñu tàmbale ko tey jii ngir dindi lépp loo xam ne mooy poussière bu nekk ci kaw ak bépp pënd boo xam ni teg na fenn ngir waajale ko bis bii ñu dëgmal di ci safar di ñaan àgg ci ak jàmm nga xam ne kon ni baaxoo def bépp piil wala bépp ventilo wala lépp loo xam ne am na fit ñu gën ko saytu ngir mbooloo fu muy daje laaj na waajal ba tax Moukhaddamatoul Khidma def ay jéego yu kawe ci loolu liggéey bi dana diire xëy na ay bis incha allah muy une semaine bu ko defee xam ne saa bu ñu xëyee nekk ci baba jant so rek noonu lañ koy defe boole ko na di tàggat nit ñi ngir bu ñu àggee ci bis ba li ñu war a def ci liggéey ba ñu man ko tax nañ ko fa soxlaa. ba léegi ci euh, wàccaayu màggal ko Touba daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu amal. fii ci grande mosquée bu Touba ngir taxawu mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ngir amal seeni ziar loole nag mu koy ànd ak lu toll ci fukki daayira ak ñett at mu jot amal nañ nag benn bésub tàggatu goo xamante ni amal nañ ko ca Ndakaaru ci Masalikul naan ngir tàggat mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo di daayira yooyu ngir fi nga xam ne moom moo di ci Touba bu ñëwee ci màggal gi ànd ak daayira Muxaddamatul ma liggéey bi danañ mën a jël mboole matuwaay yi nga xam ne war na ci wàllum prévention ngir aar ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ñëw ci jumaa ji ak mbooleem li nga xam ne war na seen diggante ak ñoom ak nekkin wi loole ginnaaw tàggatu ki nga xam ne moom moo di Sëriñ Fallou Mbacke ñëwaat na ci solo si ñu ànd teewlu ko. ndax xam nañ ne Moukhaddamatoul Khidma day ànd ak yoo xam ni aju na ci moom ak fu ñu ne ci région yi Sénégal waaye itam ànd ko ak mbooleem daayira yi nga xam ne seen yëngu daa jëm ci barab bii di jumaa ji su ko defee ñoom ñëpp dañu bokk leen waaj ba loolu tax na sax. demoon nañu ndakaaru le 28 bi passé ngir daje fi ak mbooleem daayira yi ndax lépp ci mbooloo yi xam nañu ne barab boobu de capitalu réew mi nekk nañ fi dafa yëngatoo ba tax na daje fa dana jàppande foofa tax ñu daje foofa ngir waxtaane ko loo xam ne diine moom na soxla wat jàkk rawat naag barab bu tedd bi nga xam ne fi la nit ñi jëm si di barab si jàkkate ëllëg ak Seexul Xaddim ànd nag ak ñi xam ñoo yëngu wàllu sécurité muy police ñi ñëw fa ñu defal nit ñi ay tàggat ci ni ñu nit ñi naka na def ñëw fa ñoom it defal leen ay tàggat ñoo tam ci niñ war a defee prévention ci loo xam ne bara la wax ne booloo la fi daje ndax umpale wu leen ne ren ji màggal gi dafa nekk ci biir nawet te fii jumaa ji xam ngeen ne lépp ay karaw la penc mépp ay karaw la. ci xaw naa rataxit boole ci tax na services yi nga xam ne war na suñ diggeek mboolem ñu fi liggéey ba su nit amee jafe-jafe ci sansa la la nga xam ne moo war a njëkk ci moom ñu mën ko ko defal mbokk yi ku ne màggal euh, wax loo xamante ni dafa jëm ci euh, dundal ruu yi dundal ruu yi ci li nga xam ne moom moo di xam-xam loole moom moo tax euh, daayira Muxaddamatul Xidma waajal nañ ci seen commission bi nga xam ne moo jëm ci wàllum culture ay thèmes am solo yoo xam ne moom lañ fas yéene gaaral ci diirub màggal gi di ko waxtaanee mu jëm ci mbooleem jullit di rawatina taalibe yi nga xamante nii dañuy ñëw ci dëkk bu seele bi waaye ñi nga xam ne mënuñoo ñëw it di ko mën a teewlu ci mbooleem plateforme yi nga xam ne ñoom ñoo ko fas yéene diffusé ci loolee dañuy ànd sëriñ Abdou Lahad Bousso euh, Thierno ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko leeral mboolem tam yi nga xam ne moom lañ fas yéene euh, def euh, ci màggal Touba gi. Mhm. loolu moo tax faw su màggal jubee danañu la danañu ko laytaayal ci am njàngale muy njàngale bu sëriñ bi mhm. ci wut ay tomb comme ni ñu ko defee koor yoo xam ne dañ koy laytaayale bis bi yoo xam ne dañuy seet tomb yu yitteel yoo xam ne dafay jàngale njàngaleem sëriñ bi ñu ñu wut ay borom yi xam-xam ñu ñu ñu tàmbali euh, euh, euh, waxtaan yooyu loolu nag ren niñ ko baaxoo defee su dee màggal danañu amal juróom mbenni waxtaan yoo xam ne dañ koy def am na ci tamit waxtaan wu mag woo xam ne dañ koy ànd ak comité organisation màggal lii may wax nii nag daayira bi bi mu ko dalee def ak léegi ëpp na ñaar fukki at daanaka bi mu sosoo ba léegi muy yii moom muy waajtaayu màggal ci wàllu xam-xam ak dundal guddi gàmmu ak dundal ramadaan yooyu moom bi ñu ko tàmbalee yàgg na boobu comité bi sosoogul naka jekk yàgg nañoo waajal thème boo xam ne danañ ci jàngal nit ñi lu waral màggal gi ak nan lañuy màggale ak teggini siyaar naka jekk yàgg nañ ko def kon ren ñi ngi waajal laytaay waaj gàttandoo bis bi tomb yi ci ci ci wàllu xam-xam loolu nag ñi ngi koy tàmbali incha allah le neuf safar hmm. muy juróom-ñeenti fan ci weeru safar hmm. mbokk yi ba léegi ñu desandi ci euh, wàccaayu màggal Touba gi fii ci euh, grande mosquée bu tubaa ci matuwaay yu am solo yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma jël nañ ko ngir fexe ba mbooleem millions yi taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci tubaa rawatina ci grande mosquée bi duñu am benn jafe-jafe waaye it mbooleem gan ñi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñoom ñoo leen di euh, yore di leen taxawu ci kër Serigne tubaa yi muy borom xam-xam yi muy ñi nga xam ne dañuy bàyyeekoo ci kër euh, diine yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew loolee lépp euh, amal nañ ci waxtaan wu am solo woo xam ne am ndaje la woon ginnaaw ndaje moomu ki nga xam ne moom mooy euh, kenn ci secretaire général yu daayira mu xadamatul xidma sëriñ Ablaye Diop indi na ci leeral ñu ànd teewlu ko. jërëjëf sëriñ Fallou daayira mu xadamatul xidma bi nga xam ne moo nekk ci jumaay Touba taxawaay yi nga xam ne baaxoo na ko def ci màggal Touba. bi màggal gi desee ñaari weer mën nañ ne ci tamxarit gi rek wala lu ko jiitu ci lañu tàmbali di waajal màggal gi niñ ko baaxoo defee nag xam ngeen màggal gi dafa doon munaasaba bu rëy boo xam ne euh, dafa daj mboolem Touba waaye nag barab bii di jumaay Touba daf cee am pàcc bu am solo boo xamante ni euh, daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy bàyyi xel muy waajtaay woo xam ne nag waajtaayu lu jiitu màggal la ak biir màggal gi ak ginnaaw màggal gi lu jiitu màggal gi euh, secrétariat euh, secrétariat général amal na am ndaje ci mboolem commission yi nga xamante ni ñoo nekk ci daayira bi ngir jox leen ay directives ay ndigal ngir ku ci nekk mën a def sa plan d'action waajal ko muy commission culturelle bi nga xam ne moo lépp lu aju ci wàllu xam-xam euh, nga xam ne moom mboolem conférence yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ci wàcc ci màggal gi euh, fii ci jumaay Touba ak exposition bi ñoom ña nga ca ñu ngir ñu waajal ko conférence yooyu war naa toll ci juróom-benn jataayu waxtaan yoo xam ne neuf safar lay tàmbali ba euh, quatorze safar. bi nga xamante ni moo ci bu mag bi nga xam ne moo war a am ci douze safar mooy conférence bi nga xam ne mooy bu mag bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma baaxoo na koo def yeneen yi ci des danañ ko jàllale ci yeneen euh, tasukaayu xibaar yi ba askan wi mën cee jot ngir wéttalante ak mbokki taalibe yi ci weeru safar wi. exposition bi nga xamante ni tam baaxoon nañ koo def ngir wane taarixu jumaa jeeg lu ci aju ak euh, ñi ciy liggéey ak jaar-jaar yi nga xamante ni jumaa ji traversé na ko ba agsi fii ak extension yi loolu tam ñu ngi koy waajal mboolem document yi nga xam ne laaj na ko ñu ngi koy waajal exposition boobu la ñuy def ci esplanade jumaa ji fi féete ak Kër Sëñ Fallou loolu tam waa commission culturelle ña nga ca bu dee waa commission organisation ñoom itam ñoo yor lépp lu aju ci wàllu jumaa ji ci organisation ñoom ni ñuy waajale màggal gi mooy fexe ba waajal jumaa ji ci wàllu set ci wàllu entretien mboolem làmp yi fi nekk ñu vérifier ko bu ci aaju changé ñu changé ko lépp lu fi taq ñu defar ko décoration eh, intérieur bi ci kaw gi ñu fexe ba dindi poussière bi am nañ ay jumtukaay aspirateur ay échelle fexe ba mboolem jumaa ji daal lépp lu mu laaj ci wàccaay ñoom ñu def ko loola def nañ ko mooy wàccaay bi nga xamante ni moo jiitu màggal gi waaye itam am nañ beneen wàccaay boo xam ne muy personnel bi nga xamante ni ñoo fi nekk di liggéey te xam nga ne daara Muxaddamatul Xidma dafa am ay cellules yu bari ci Sénégal ci ndakaaru ci biir Touba ci boppam yeneen cellule waaye ci yeneen régions yi fu mel ne Louga ak feneen ak feneen yooyu itam bu màggal jotee dañuy ñëw fekk si membre yi daayira Muxaddamatul Xidma yi nekk ci dëkk bi ànd ak ñoom liggéeyu ñoom itam am na waajtaay wuñ leen war a waajal ci wàllu sensibilisation waxtaan ak ñoom waaye itam teg yi yoon yi nga xam ne ci la ñuy jaar ba mën a saytu jumaa ji ñi fi ñëw di ziar di julli mën a def seeni ziar seeni julli te benn jafe-jafe du am ànd ko ak force de sécurité yi nga xam ne muy détachement police bi nga xamante dañ leen di indi fii ci jumaa ji ngir ñu ànd ak ñoom liggéey bi yooyu itam def nañ ko ba dem nañ fi euh, amal nañ fi benn séminaire bu am solo fële ca ndakaaru ca Masaalikul Jinaan euh, ñoom waa organisation dem fa dajeek mbokki taalibe yi nga xamante ni ñooy ànd ak ñoom liggéey bi tàggat leen waxtaan ak ñoom Euh, invité fa commandant sapeur pompier ngir mu def exposé ci wàllu sécurisme nu ñuy euh, sauver koo xamante ni dafa daanu gaañu wala koo xam ne dafa xëm wala gaz bu tàkk wala ñaari ñu ko yàlla benn incendie bu am ci jumaa ji nan la ñuy defee ay intervention ba gravité bi mën a bañ a ba mën a bañ yokk loolu tam def fa exposition ci wàllu police ci wàllu protocole ci wàllu sécurité muy kon waajtaay bu am solo woo xam ne noonu lañ koy wéyale nag. ànd ak entretien bi ànd ak setal jumaa ji ba biir màggal gi nag ñu déployé lu mat personnes yoo xam ne biir jumaa ji ak li wër jumaa ji ni ma ko waxee woon organiser julli yi organiser siyaar yi sensibiliser itam nit ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci màggal gi ba comportement yi ñu war a am ñu am ko loolu waa organisation ña nga fa waaye waa communication tam jël nañ seen i matukaay ci wàllu lépp loo xamante ni lu aju ci tasum xibaar la ci màggal gi ci jumaa ji am nañ seen plan d'action ñoom itam ci wàllu émission yoo xamante ni moom la ñuy ànd ak mbokki taalibe yi ay jataay waxtaan invi ay invité ay reportage waaye itam initié ci itam journal di màggal muy lu bees loo xamante ni am na ci biir euh, communication bay lycée waale itam lu ñuy wax émission boo xamante ni ganu safar lañ ko tuddee ngir ànd ak nit ñi di leen wéttali loolu tam waa communication ña nga ca la ñuy wéyalee ba ci màggal gi ba bépp organe de bu ñëw ci jumaa ji danañ ànd ak yow liggéey bi encadré la ba nga xamante ni li ñu war a gis ci màggal gi ci jumaay Tuubaa loolu rek la ñuy gis muy lu am solo loolu tam waa organisation noonu la ko waa social defee ñoom itam ci wàllu santé xam ngeen infirmerie bi nekk ci biir jumaa ji ñoom itam ña ca waajtaay wa ak waa santé defar nañ ko ba lépp lu mu laaj ci ay jéego ci suñu diggante ak ak ñi nga xamante ni mooy district sanitaire bi ñoom ña nga cee dox ba dana am benn équipe boo xamante ni benn poste avancé boo xam ne dañ ko indi ci jumaa ji ci infirmerie bi mu nekk fi ngir assister mbo ñi nga xamante ni mooy mbokki taalibe yi ñëw ci juma ci màggal gi ci seen wàllu wér-gi-yaram loolu ña nga ca ak yeneen lépp loo xam ne laal na action sociale kon li ma waxoon mooy commission yi ñoom ña nga ca waaye nag daayira Moukhaddamatoul Khidma dafa am aw sas nag ci biir màggal gi woo xamante ni dañ ko ko dollil ci liggéeyam waa euh, depuis comité d'organisation bi sa suba léegi muy accueil hébergement les délégations religieuses maanaam kër këri diine yi nga xam ne ñoo ñëw ci màggal gi daayira Muxaddamatul Xidma moo leen di dalal di leen héberger di leen toppatoo loole tam leen détaché ci kër sëñ Touba gii ci comité d'organisation bi ci kër sëñ Touba gii nekk ci jumaa ji ak ga nekk Daaru Manaan équipe bu mag bu daayira Muxaddamatul Xidma ña nga fa at yépp ñuy taxaw gan ñi di leen teeru di leen dalal di leen toppatoo ànd ak ñoom màggal gi ba màggal gi jeex incha allah di ngeen gis ay yoo xam ne ci biir kër sëñ tubaab yi dañ leen fu fekk wan leen ni ñuy liggéey kon daal lii mooy sas wi nga xam ne moom la daari Muxaddamatul Xidma di def loolu lépp nag ñu ngi koy tàmbalee ci benn fanu safar ba mën nañ ne màggal gi jeex ba am fukki fan ci la ñuy nag dellawaat lépp netuwaay waat jumaa ji nag loolu lépp di ngeen ko gis ànd kook ñun incha allah taala sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadir mi nga xam ne moom la sëriñ bi dënk lépp lu aju ci màggal gi te mu yor doom moom itam di ku jàmbaare koo xamante ni day ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi euh, moom it dana incha allah saafonte ak mbokki taalibe nga xam ne ñoo ñëwoon ànd ak euh, euh, daayira Muxaddamatul Xidma ci liggéey bi loolu da ngeen ko gis incha allah ci MKTV kon daal sëñ Fallou lii lañ doon tënk ci li nga xamante ni fi lañ tollagoon ci liggéey bi danañ am yeneen jataay yoo xam ne danañ leeral fuñ ci toll incha allah du umpu mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan MKTV jërë ngeen jëf mu nekkoon kàddu Serigne Abdoulaye Diop di kenn ci secretaire général yu daayira Muxaddamatul Xidma mbokk yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Xaadir mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit déclaration bi nga xam ne def na ko ci wàccaay màggal gi ci mboole matuwaay yi nga xam ne comité d'organisation bu grand magal bu tubaab bi nga xam ne moo ko jiitee ñu ngi koy amal ñaaxaat na bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ci bërëb bu sell bi ñuy gën a bàyyi xel ci barab bi nekkin wi ak teggin yi nga xam ne moom moo fi war taalibe bu nekk rawatina photo yeeg snap yi nga xam ne saa su ne bu ñëwee ñu ngi koy jiital ci li nga xam ne moom mooy ziar yi nga xam ne ak ñaan yi nga xam ne moom lañu war a amal ci bërëb bi ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre. waaw ma xoddumat xidma ñoom itam am nañu lu leen métti lool ndax xam ngeen ne jumaa ji mooy liñ gën a fonk ci àdduna Serigne Touba fa dëkk te barab bu tedd na fax la xanaa day ka indaka bil waadil muqaddas nit ñi nag dañ fi ñëw léegi di ko jàppe ak fowukaay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 du la indi dara lu may ak fitna mbokk yi ñuy bàyyi xel lii la ñu indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyi ko fii ci grande mosquée bu Touba ci wàccaayuk màggaluk 1444 ginnaaw gàddaayuk yonent bi salallaahu alayhi wa sallam di atum 2022 war a doon jeudi 15 septembre incha allah di fukki fan ak juróom-ñett ci safar. bés bu yàlla sàkk wala fii fan incha allah daañu leen indil yeneen i xibaar yoo xam ne mooy bàyyi ko ci dëkk bu sell bi lépp jëm rek ci wàccaayu ak mbooleem li nga xam ne moom moo aajo ci màggal gi sant leen bu baax a baax gërëm leen ci teewlu gi ñu leen tàggook xasida gi nga xam ne Serigne Khadim Diop jàng na ko wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu يا إلهي يا من عليه اتكالي فكك أبلي بروض أهل سفيني عجل الفات هوى التجود بفيوض مخجلات سكبا سيكا بالدجون ربي وافكك أسري ورا أهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني rabbini rabbi raqini rumashani zakkilin no na xam la wasini